émission bi seen émission la ku wax lu ñaaw doon la ci dugal doon wax li nga wax waaye critiquer leen bu leen neexee nee leen nu nii néeg nii baaxul bu leen neexee diw nii mu waxee baaxul bu leen neexee yooyu yëpp bu leen neexee ba mu des ay wax yoo xam ne wax yu tegginuwul ndaxte ñun ak yéen ñoo far dan fee toog rek waaye yéen it mënoon ngeen fee toog ndaxte ñun ñi fi toog sax li ngeen xam ñun xamuñu ko loolu it ngeen ngeen jàppe ko noonu Fadam tey ki invité moom moo di Zarko waaye balaa ñoo dugg ci Zarko am na fu làmb toll. ah combat yaa ngi taxaw te ci koor la ñu ne. te teewul combat yi mi ngi gën di taxaw saa woo yeewoo ñu ne la combat dangam taxaw na waaw. Abdoulaye ñu ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal jàmm di nuyu population sénégalaise yëpp di leen ñaanal jàmm di ñaan jàll jàmm ci réew mi comme ni nga ko waxee di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan yaakaar naa ne intérêt la ci làmb ñu gis combat yi di taxaw bokk na ci luy yokk làmb. fii làmb jëm bokk nañu gis nañu tey jii promoteurs yu bari ñu ngi ci làmb ñu ngi xëccoo lee grands offices. Hmm. yii mbër ñu ngi leen di xëccaat yi nga xam ne am nañu combat di taxawal seen i combat ci suuf. Hmm. yii mbër ñu ngi leen taxawal seen yeneen combat ci suuf ngir li nga xam ne mooy yokk làmb. Hmm. fi làmb jëm nag fenn rek la muy benn point mooy promoteurs yi age ku ci nekk sa intérêt bopp rek nga teg. ñii. combat royal yi ñoom lañ bëgg. ñii combat yi nga xam ne nii sponsor yi moom lañ gën a bëgg. Mhm. ci lañ bëgg ñii nga xam ne tey jii affiche yi nga xam ne tey jii moom la sponsor yi gën a ciblé. affiche nga xam ne moom la sponsor yi gën a ciblé moom lay promoteur yi jaw dem. Mhm. mais nag li nga xam ne tey jii âge moo ciy gën a dimbale làmb te sax ci la làmb di gën a intéressé woo mooy amateuru làmb yi nga xam ne dañuy dund làmb. Mhm. ñoo bëggatul combat boo xam ne ay combat négociation. combat yi ñu bëgg mooy ay combat yi nga xam ne ay xale yoo xam dañ leen di boole ci njar ndéem comme combat yi ñu gis ñi muy taxaw ku boo ko boolee Boy Niang combat loolu combat amateur la amateur la waaw combat amateur la ndaxte combat ñu mën a bëri la waaw waaw du affaire combat fans club du ay ñu mën a bëri la ñaari ndaanaan la mhm. ñaari ndaanaan la am na benn jour ñuy wax ci komba Ama Baldé Modou ma la as bekaay leen rek moo ma ci jaaxal ma ne Ama Baldé Modou Lo lamb la. lamb la waaw waaye combat booy ñaam Modou Lo lambi amateur la. lambi amateur la waaw. waaw moo tax lambi amateur combat bu compliqué la woon. waaw ci ñaari camp yëpp. te feeñ na ci bëri ba. ci bëri ba dañuy feeñ dañuy feeñ. Uh-huh. ku liirul jeu bi rek da nga koy ñàkk. da koy ñàkk te booy ñaari rek noonu la mel waaw. waaw boo xam ne nii tey jii dama cee gis ne sax booy ñaar da cee war a jël ay engagement am. waaw. daf ci war a jël ay engagement jël ay responsabilité non amul kenn non mais attends combat boobu ku ci jëlul say responsabilité da ngay ñàkk. moom amul moom amul dem te ñëw. xam nga Boy Niang instant bii ñu toll. ku dem ba bëre un donc amatoo droit def mhm. que tey Modou moom a daan naam du gàcce. waaye maa bëree combat royal ak Modou mhm. ndam la. Mhm. maintenant dafa war a def lu tuuba racheté waat. mooy mu neex ndam moo ko jëkk comme ni ko laaj sàppali di waxee mu naqari ndam moo ko jig s'il veut mhm. bu fekkee dafa am benn cercle de la cour royale mhm. boo xamante ne ko couronne bi dafay tourner ci seen biir rëg-rëg mhm. fëgg na bunt boobu mën nañu wax ni que bokk na ci xale yi ku njëkk fëgg ak Siteu donc te boo xoolee moom ak Ama Baldé ñu ngi ci biir kon cercle boobu ba tey waaw parce que quel du combat Modou Xarañ Lo. Siteu ak Siteu kii di Reug Reug mën na duggaat suuf Siteu mooy liñ doon discuter dem mhm. mhm. si Siteu devient un nouveau roi des arènes. naka lay demee ci Reug Reug loolu pour man lu waa caaro yi war a commencé càmbar la. Mhm. dès maintenant parce que écurie caaro yi mooy lansaar lansaar mooy caaro yi. ni ko booy waxee jomaay mooy Sonko Sonko mooy jomaay. maintenant. li nga fu bóor balaa ngaa balaa ngaa développé waat. daa am benn point boo xam dama ciy dugg. daa benn point boo xam dama ciy dugg. waaw point bi may dugg chaque jour ci làmb mooy ASBK yi Boy Niang numéro 2 bu jëlu ay ay initiative ci combat bi mu jëm. Mm-hmm. ndax combat moom Modou Lo da cee war a jàngee loo xam ne nii ci la indi contrôle rek. Mm-hmm. mais combat à risque ci la booy ñaar di bëre. Mm-hmm. ci la Ama di bëre. ci la Modou Lo wala Siteu. ñoom ci xaw ndax mu nga Ama ko xaw tane. waaw dafa jël mbër mu mag doo ko mujjee rek rek. muy Gris Bordeaux. Mhm. te Boy Niang daa jóge ci defet contre Modou Lo war a jàkkaarloog rek Reug. war kon ñaari position yi du benn. du benn Boy Niang moo gën a nekk ci position boo xam ne nii li làmb di xaar Boy ñaa dafa am lu mu rate ci contre Modou Lo. Mhm. te lim jàng ci contre Modou Lo mooy gis nañ ne Boy ñaa bëri na consigne. Mhm. Boy ñaa dar nañ ko dar bu yéeme. Boy ñaa éduqué nañ ko ci combat bi te loolu lépp. ay engagement am la war a doon ñoo ñëpp di ànd ak Boy Niang am nañ xam-xam nangu nañ leen ko. Mhm. mais fi Boy Niang jëm ci làmb li ëpp ci carrière am. Mhm. pour mu mën a réussir pour mu mën koo téye Boy Niang moo ci jëla boobu ay engagement. waaw mais waaw d'accord naa mais Baye Balla mhm. li tax ma ni ñoom ñaar ñëpp ci risque la ñuy bëree. parce que euh, sa rëg-rëg dafa bëree ak Sa Thiès daan ko. rëg-rëg dem bëree ak mag daan ko. Bombardier léegi war a retourné waat bëri si ak Boy Niang. ak Boy Niang mi xam ne il ko daan waaw. il faut rëg-rëg te waaw booy ñaa mi nga xamante ni ki daan rëg-rëg booy ñaa ko daan kon il faut rëg-rëg aussi mu xam ne am dugg na ci combat boo xamante ni à risque la c'est vrai que daan na Bombardier waaye bu ko booy ñaa daanee tamit dafay xajamal carrière am euh, Asbekaay jërëjëf euh, rëg-rëg dugg na ci combat boo xamante ni combat bi risque la ci moom mm-hmm. waaye ñaar ñi ko jël tamit combat bi risque la ci ñoom Mm-hmm. waaw parce que Reug Reug ku ko xam xam ni mbër kaamil la. waaw mbër mu mënta daan ci làmb. Mm-hmm. Boy Niang maanaam Boy Niang li mu ci am. Mm-hmm. Boy Niang asbekaay. li mu ci am mooy booy Niang dafa aay ci attaquant. Reug Reug ku ko xam-xam ni. bu arbitre génnee sa diggante adversaire bi. Ah. foo nekk dara fay fekk. waaw Boy Niang ci kooku la aay. par rapport ak digganteem ak Ama Baldé ñoom ñaar dañuy daje. combat boobu mooy combat risque pour man pour Ama Baldé. mooy combat risque pour. Ama Baldé pour Ama. mais bu dee booy ñaa gisoo fa risque yow. li tax ma ne la Ama Baldé combat am ak Gris Bordeaux la. Mhm. Baye Balla est-ce que yaa ngi imaginer. Mhm. Mm-hmm. Ama Baldé mu perte contre Gris Bordeaux naka la war a bëree ak Reug Reug mais Ama combat yi mu mu jéejee yëpp combat yi. presque waaw non non xam nga lu tax ma tuddee ko risque ci Modou Lo ci Gris Bordeaux ba ci. Ah, euh, xam nga xam nga xam nga lu tax ma tuddee ko risque. Mm-hmm. day bëree ak mbër moo xam ni mën nañu wax ni plus de quinze ans ou plus. waaw amul victoire. Mm-hmm. muy kan. muy Gris Bordeaux. Gris Bordeaux waaw. waaw tey fi ñoom Eumeu seen toll ak ñoom Bombardier ci seen porte de sortie foofu la toll. tey Gris mu daal